jërëjëf mbokki internet yi jërëjëf mbokki réew mi ñoo ngi leen nuyu ni ñu leen ko waxee woon ne leen Dakaractu dina ànd ak yéen ci 9e édition du tournoi de lutte de la CDAO gis ngeen ci premier jour bi équipe nationale du Sénégal li mu def comme ay exploit tey nag ñu nekk sur la grande finale waaye Cheikh Omar gis nga tey le ministre le plus aimé de la République le ministre des sports Makhtar Ba ñëw tey ànd une très forte délégation accompagnée du président du CNG ñëw tey dund tey ambiance waaye ambiance boo xam ni mu ngi tegu sur la signe de l'unité sur la signe boo xamante ni que Sénégal yëpp dañuy bokk ndey bokk baay pousse seen équipe ngir mu am ndam kon Cheikh Omar nañu ànd nag dund ambiance waaye Serigne fii tey du yomb. booy tey fii du yomb. du yomb li ko def mooy Sénégal moo xewle waaye Sénégal xamu nu mu def teel a taal teel a dugg marché teel a yàq gisoo catégorie bi fi jaar rek yàlla dogal na am na ca ndam moo organisé li nga xam bi. waaye do ci ginnaaw waaye nag alaaj bur géwél sama yaram dafa daw ndax bi ma gisee Matar ba taxaw manga day ñëw ba ci kanamam mu njuug ma gis sa xarit sa doomu ndey sa papa Gaston Mbengue wala ba nga ñëw mu yëkkati ay teraanga yu bari jox la bur géwél tey jii géwél yëngu na géwél na xamante ni que sénégalais yi wax tax ay supporters mais ay sénégalais la ñu wax yoo xamante ne que tey gis nañ seen ministre de tutelle bëgg waxtaan ak moom am ay cadre yu ñu ko dénk moom tamit moo am aussi tamit une oreille attentive déglu leen ñu wax ñoom tamit ba yeggal ni ñu waxe jox ko moom tamit mu wax delloo leen dafay wane rek chaque jour euh, mbay euh, disponibilité la gi nga xamante ne que le ministre des sports am na ko. tey dama ko naan tuyee le ministre le plus aimé de la république du hasard. déedéet du hasard mais jikkoom moo tax. parce que gis nga li ñu li ko xale yi jooytu. mooy ñoom ñu ngi jógee benn tëjee. seen arène dafa daanu. tey li ñu bëggoon tey mooy en tant que ministre de tutelle mu jàppale leen yëkkati leen miir ba. tabaxal leen ko te gëm naa ni que ni mu leen dégloo noonu la koy doxalee donc lii mooy. lii c'est le meilleur ministre des sports. man dama man dama ni ko tu es le ministre le plus aimé de République. parce que d'abord respect bi mu am citoyen sénégalais yi respect bi nga xamante ne que am na ko. bi nga ñëwee tey xale yi benn dañoo jóg tàccu la ba noppi wax la ay doléance ñu wane considération bi. parce que ñoo bokk li ñuy def ñii suñu xarit lañu Sénégal a ngi def lu doy waar. xam nga Sénégal nag lii rek a fi am jàmm rek sportif lañu fonk làmb moo tax président Macky sal defaral lii nga xamante mooy arène bi kon dañu war a joxante loxo rek di defar bañ a yàq. mais considération bi nga am citoyen yi ba noppi ñu delloo la ko. waaw man considération la am ci ñoom xam nga nit ki loo ko ji rek moom la lay delloo sama waay lañ ci ñoom laa parce que amateur la samay waay lañu ci ñoom bokk Cheikh Oumar parce que la mu ngi noonu gis nga ginnaaw bi mu dégloo supporters yi mu ngi delluwaat lu jaadu la lu jaadu la Fane Ndiondo. mais alhamdulilah mbir boo koy def te nga boole seeg kër boole seeg détermination Sénégal gi yëpp ñëw wuyu si la il faut mu am réussite donc ñu ngi féliciter tout le monde di féliciter surtout le CNG qui a mis beaucoup de moyens pour la réussite de cet événement caaxaanuñ si dara lépp lu si waroon pour ñu am ndam def nañ ko moo tax yàlla may nañu ndam.

bàyyi këram moom mi chaque jour mu jóge mbuur ñëw chaque jour chaque jour mu jóge mbuur ñëw donc loolu détermination boobu engagement boobu ak euh, ni ñu collectivement ba ci ba ci gis nga ko ni màgget mi ñoom ñëpp saa bi ñu àndandoo moo indi lii ñu def nii vraiment macha allah wax dëgg yàlla réussite totale la macha allah. màgget dafay wane nouvelle élan wala beneen nouvelle air, bu CNG di actuellement ci ndax nañu changement hein, même côté organisation côté sécurité nañ ci vraiment ay rénovation mais avant tout di mais wax rek rek solo Ni si lo nek rek nañ si liguey bo rek da nga résultat donc vraiment ñu ngi remercier di remercier peuple Sénégal bi nan vraiment content nañ et puis yeen tamit seen liguey rafet na di il y a def un infatigable toujours sous les couleurs de accompagner le ministre des sports qui ci lu mu dem aussi Sénégal fu tay boy soli les couleurs nationales ban fierté oh, C'est mon Momar Ndiaye alliance Ndiaye drapeau je suis le porte drapeau national toutes les disciplines sportives du Sénégal le chevalier ordre national décoré par le président de la République Macky Sall man dama euh, damay défendre couleur bari naa activité yu am tey mais comme que danoo organise CEDEAO CEDEAO di ko organise Sénégal damay bàyyi yëpp pousser sama gaynde yi nekk fii jusqu'au final victoire ba ñu gagné médaille d'or tey Siré tey na tey tey gis naa président ba nga Cheikh Oumar yéeg ci kaw ci wetu Makhtar ba may fàttaliku sama enfance maa nga dee ba ma daan gis bu eh, maanaam ci takaay bu njëkk ba ànd ñoom bu naa ma rasta daan bàkku tey. C'est neuvième édition vraiment c'est une très maanaam c'est une fierté. non vraiment content. parce que mon naa c'est une première C'est une réussite totale def nañ ko drapeau chef de l' état yàlla defal ñu ndam foofu ñu ñëwaat CEDEAO yàlla joxaat ñu ndam donc il fallait que je remercie le ministre des sports boo qui nous à travers notre président de la république Macky Sall ndax Macky Sall bijou bi offrir.

bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ma dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb lay bari